ñëwaat tey ci bésub setal muy bés boo xam ni dañu ko nattoon ngir Sénégal ñépp jóg daldi setal seen gox bésub setal nag du rekk bésub gouvernement bi déedéet du rekk bésub ministère de l'hygiène publique waaye bésub ñépp la muy boroom kër yi muy kilifa diine yi muy kilifa aada yi muy association yi bajjanu gox muy maire yi ak collectivité territoriale citoyen tout simplement ñëpp ñoo ci war a jàpp setal suñu dëkk setal suñu gox ndax ci ceet ci la wérgu-yaram mën a am fii nag maa ngi ñëw tey ci lycée bu ñu tuddee sergent Malamine Camara mu doon jàmbaar joo xam ni ci jamono colonisation la woon mu doon jàmbaar bu ñëpp ràññee woon ay mbiram ñu jëlee ko fi yóbbu ko ba Congo moom sergent Malamine tubaab yi ba ñu demee ba war a dellu ñu ne kat faaw ñu dënk ko Congo ñu daal def accord accord boo xam ne dañu ne jamono jooju colonie de Congo mu ngi ci loxo sergent Malamine mu defendre colonie bi contre Stanley ba nga xam ni ñi ko yónni woon ñëwaat nañu ñaari at ci ginnaaw moom ak buur ba fa newoon di buur Makoko premier dama ne kooku taarix la boo xam ne tam suñu waa réew war nañ ko xam kon nag yéen ndaw lycée bi war ngeen xam ni am ngeen royukaay muy parrain wu lycée bi di sergent Malamine war na tax ngeen jàng góorgóorlu setal seen école te nag sax seen école bi dafa set dafa yànj dafa taaru ndax Sénégal bëriwul école yu am ay garab ki nag gis nañu garab yi ni mu mel meññ nañu te proviseur wax na programme yoo xam ni am ngeen ko dinañ leen ci jàppale dana leen bàyyil tey ci loxoom juróomi million pour ngeen def ko ci seen caisse pour mu nekk loo xam ni encouragement la parce que si yéen laa ko gisee seen pas-pas seen taxawaay grâce ak seeni jàngalekat léegi nag xam ngeen ni feebaru mbas mi moo waraloon ñu taxawal bësub setal ñu ngi ko tudde woon cleaning day waaye suñu kàllaama mooy bësub setal may gërëm ministre Abdoulaye Seydou Sow bi nga xam ne moo génnee loolu taxaw si taxawaay bu rafet ak ñi mu àndal ak ministre yi fi nekk may nuyu suñu ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr di wanewaat sama mbégte ci liggéey bi ma ko dënkoon mu mot ko sëkk en tant que ministre de la santé dans une crise de pandémie aussi grave que celle de la Covid-19 di nuyu ministre de la jeunesse moom itam yor ndaw ñi ne na Fatoumata Tall xam ngeen ni programme xëyub ndaw ñi gis naa xale yi sànq am naa ci mbégte lool am mbégte nag ci waa UCG ci seen liggéey bu rafet seen liggéey bu rafet fépp ci biir Sénégal loolu tam ah bu lëg lekkee aloom na ko gërëmee coy kii ñu dénk UCG wane na ci xam-xam wane na ci xarala kooku mooy Mass Thiam nekkoon na ci yeneen yeneeni secteur mais dama koy félicité waat parce que nii ñuy doxalee noonu la war a demee mbalit mi ñun ñëpp ñoo ko war a jël dindi ko buub ko yóbbu ko ñu daldi ko daldi setal suñuy gox loolu kenn warul ci xaar UCG walla leneen kon li proviseur wax dama koy dëggal encourager ko si weer bu nee na école bi def opération waaye dangeen am seeni poubelle ci biir ekool bi kenn ba sànni këyit kenn ba na sànni mbalit loolu ci la wér yaram di mën a ame ci la taar di mën a ame kon nag su may jeexalee mooy maa ngi gërëmaat waa réew mi yépp di ñaan kilifa diine yi ñu dugal seen loxo ak kilifa aada yi ci setub dëkk bi ak setub réew mi senegal réew mu ama am solo la réew mu ñu naw la ci domaine yu bare bare waaye nag ku gis mbalit mi ku gis salte yi rek danga nga xaw a am noo ñu xoolee loolu laa bëgg ñu dindi ci makkaanu senegal dëkk boo dem mu nekk dëkk bu set wecc ñu woo bàjjenu gox yi woo élu yi woo jeunesse bi surtout ASC yi parce que ASC yi mbirum koñ la kon maa ngi woo ASC yi ak waa ONCAV ministre de la jeunesse ànd ko ak ministre de l'hygiène publique ànd ko ak ministre de la jeunesse pour que quartier yi gox yi ak gox-goxaan yi ñu setal leen te ñu jëmbat ay garab jëmbat garab ci buntu kër yi jëmbat garab ci biir réew mi maa ngi leen di sant di leen gërëm ba beneen